Yewwi Askan Wi camarade de Dakar nañu sant yàlla bu baax parce que dégg nañu suñu xel sedd na suñu xel dal na ma ne nañu sant yàlla santaat yàlla santaat baax suñu xel dal na suñu xel sedd na Barthélémy Dias censé, au nom des leaders, ma def parole ak i investir le suñu candidat. loolu la ma santoon muy wareef muy bànneex muy lu ma sawar ngir ñetti bu bi mooy Barthélemy mbooloo mi la doyloo mbooloo mi nga àndal mbooloo mi tax lii moo ni Barthélemy Dias la ñu yokk ci ni suñu 19 candidats yi parce que nag combat wu mairie combat wu ville combat wu commune il faut gagner dans chaque commune il faut gagner dans chaque commune sama doom ngoone présenté na léegi suñu candidat yi ak suñu candidat nga xam ni moom la ñu am ci 19 communes muy ay jigéen ay góor ay xale ay mag yoo xam ni ils ont la culture de leur commune ils ont le sens de leur commune ils sont imprégnés des réalités de leur commune mais c'est surtout c'est des candidats de rupture d'innovation c'est des candidats qui vont oser construire looloo dalal suñu xel looloo dayloo suñu xel parce que xale yi nga xam ni moom lañu ñu jiital ci 19 communes yi dañu xam seen bopp xam suñu bopp xam li ñu doon xam li ñu yéene xam li ñuy liggéeyee. mën ko liggéey te fas yéene na def lu ko kenn daawul def xam nga lu tax ñi nga xam ni noonu leen jàmmaar loolu duñu benn ñu leen ñor. Boy Belka fan lañ jëm wale fan lañ jëm wale Thank you. c'est des personnes de rupture ñu xam seen bopp xam lu tax ñu jiital leen ñu xam surtout li nga xam ni moom la yewwi askan ñu tëral ci doxalin ak yéeneeg yaakaar doxal suñu gox-goxaan li tax ñu tànn leen ils sont imprégnés ils sont inspirés de notre idée de gérer autrement nos localités gestion bu wóor gestion bu neer gestion bu aw yoon mais gestion buy jëriñ askan wi nous sommes tous adeptes d'une pensée locale et agir local pensée locale et agir local ku nekk ci moom suñu candidat yooyu ak suñu candidat yi xam nañ ni soo doxalee sa dëkk muy sa koñ di sa kër di sa quartier mën nga doxal sa kër mën parce que dëkk bi mooy kër gi mooy koñ bi mooy quartier bi mooy fi ñu dëkk suñu candidat yi loolu moo leen inspiré mais li leen soxal mooy dañu leen fal nag ngir ngir liggéey ngir ànd ak was askan bi liggéey liggéey ak askan liggéey ngir wër askan bi ñëpp xam nañ ni Dakar mooy Sénégal ani man nga ko attan nga ko bëgg nga ko liggéey askan di liggéey suñuy gox mooy liggéey sa réew parce que da ngay toppatoo askan bi da seen dëkkin da ngay toppatoo seen dëkkuwaay da ngay toppatoo seen melokaan da ngeen di toppatoo seen nekkin da ngeen di toppatoo seen ëllëg ak lu leen ak lu ñu bokk mais la différence avec les autres c'est que ñun li def dañ koy def ngir ñoom ak ñoom pour ñoom ngir lu jëriñ dëkk ñaareelu Barthélémy Dias pour tey nga ci ma wax ci leeral Yewwi muy àndu góor muy àndu nawle mais muy àndu ay bañ yenn bañ nangu yenn yi parce que nag ku xamul sa bopp mooy nangu yenn ku xam sa bopp am na loolu nangu doo ko def parce que nag dara jaru ko fi lu nekk ci nit di lay Yewwi Askan Wi li mu proposé askan wi du pour ñu Yewwi Askan Wi wóor nañu ni chacune de vous chacun de vous conscient de ce qu'il peut apporter à sa collectivité à sa localité mais surtout ku nekk ci yéen xam na ni la koy jëriñ moo koy defal boppam ku koy ci fekk na koy jàppale wante du mën xamal na ko boppam Yewwi Askan Wi ni il faut gérer autrement les collectivités il faut que nos collectivités soient le miroir de l'état futur que nous allons construire en 2022 quand nous gagnerons les législatives inchallah te ñu bëgg mairie yi ngeen di yor dooni structure yoo xam ni ku ko gis xam ni lii weesu na lii am na lu coppeeku ci lii am na nit ñi jëriñ moo tax Bart yow ak say 19 collègues dañ leen wóolu dañ leen doyloo dañ leen yaakaar ne xam nañ ne du ngeen ñu bett du ngeen ñu bett te di ngeen def li ñu bëgg incha allah. mooy yoo Dakar. Dakar. pourquoi ñun ñëpp ñu d'accord ni yaay suñu candidat. tu en tu en as la capacité, tu en as l'ambition, mais tu en as surtout la force de caractère qui fera que tu seras toujours moo tax du ma balee lépp te xamal ne wóolu nañ la doy loo nañ la yaakaar nañ la yéene nañ la. yàlla na daal Dakar mottali suñu yéene numéro 3 du 23 janvier vive la scène vive Barthélémy Dias vive les 19